asalaamaaleykum à Dakar Tay ñu ngi fi fii euh, Médina euh, centre de vote stade Iba Diop bi nga xam dañ ko délocalisé au niveau du CM Martin Luther King on défi notre devoir citoyen lors des élections législatives anticipées yi nga xam son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moko initié. initié euh, gis nañu vote bi ça se passe dans le calme euh, xeyna matin bi xawona calme mais est en masse nit nit ñi ngi génn masse voté gis sank euh, représentant bureau de vote bi euh, comité électoral pasef mérina def nañ ko commencé ñu jox un peu le taux de participation à midi gis nañ centre bureau yi nga entre 560 600 votants ci entre 130 140 on, peut est entre 20 à 25 de votants vers midi mëna wax ni sax euh légui bu centre bi environ 150 à 14 heures presque donc espérons que dañu 17h 18h dañ entre 45 et 50% Ce n'est pas le taux le plus élevé ci élection législative mais dana bok taux yu gëna bax donc lolu moy wone engagement La population mérinoise a nañ ko pour voter et, nous espérons aussi euh, massivement pour le compte de la coalition PASSEF, Nous avons ci élection présidentielle de 60 on avons entre 80 et 85 L'objectif de objectif la coalition PASSEF au niveau national je pense Médina na ci parti bu de 150 députés bu loolu aussi remercier toute la section Médina de PASSEF, remercier aussi également le comité électoral qui a fait une formation au niveau de la maison d'outils euh, de la maison de culture D'autres secteurs, def vérifier tous les centres tous les bureaux de vote il y a des représentants qui sont sur place ils font actuellement euh, très bien leur travail Je remercie remercier je remercier je engagement je remercier toutes les commissions techniques qui nga euh, organisation commission communication les commission stratégie

Euh, dem ndékki voté njogonalu jubilé comme ni ko defoon ci élection présidentielle inshallah ah non photo Diomaye war ci am photo président premier Ousmane Sonko nee photo mo moo xaw leer mais xam nga par impression set yi xam bu bëree du leer comme impression couleur mais je pense que xool nañu écriture leer na bu baax xeyna photo nga xam ci imprimante ni mu leer bokkul ak ni nga xam imprimeur ko defee leer mais je pense à l'image de tous les bulletins yi nga xam ñoo nek ci biir euh, bureau de vote. nga xam sax xam nga. Euh, lepp lo gis rek day day jeex euh, campagne am na fi day jeex peut-être amone quelques tensions nim ko amé au niveau local noonu ko amé au niveau national mais je pense que on doit revenir à la sérénité xam ni dëkk bi ñun ñëpp ñoko bokku bu ñu wéré liggéey Sénégal liggéey Dakar on doit travailler dans la paix dans la sérénité yenn kër yi wala yenn ki am benn so mais nak lu jaadul jaaduwul lépp loo xam ni euh, comme son excellence président Bassirou Diomaye kep ko wax ci jaaro ci yoon inshallah allah rabbi euh, les forces de sécurité sont là pour vous remettre à l'ordre de ci qui xam lu dans la transparence dans la sérénité et dans le calme